ndeysaan dëgg làmb daal ndeysaan da koy sàjj rek soo sàjjee ba pare ndeysaan nga dugg cosaan dégg ngeen a Babacar Faye moomu ni mu ko duggee ndeysaan Mbaye Babacar a moo nekk noonu ndeysaan di rakk ci Babou Faye ndeysaan di mag ci Maodo Faye ndeysaan di bàyyi ci Mama Ngom kon jax si production sa bés bi neex na déggal ma loolu ndeysaan moo sabari ndeysaan kon mbokk Sénégal mbokk àdduna Mbaye Babacar moo nekk noonu moom moom it dugg Gandiaye ndeysaan di doom ci Ousmane Faye ndeysaan di mag ci Maodo Faye ndeysaan comme ni ngeen ko gisee sabar yaa ngoog mu ànd ak i rakkam ak ay doomi baayam ndeysaan ak i magam ndax maas li magam ndeysaan mu ngi ci ginnaaw moom maas moomu kon jax sa bés bi jax sa bés bi rees ndeysaan waa Kër Mbayang ñoo nekk ci micro yi ñooy woy Papa Ndiaye nekk ci caméra bi Ndoye Fall Cheikh Faye nekk ci micro bi comme d'habitude Kër di yoo mbokk yi gis ngeen ko kon jaxsi moo ñu fu woo tey gis ngeen ko mbër yaa ngi noonu di dugg si saan Ibou Ndiaye moo nekk noonu Ibou Ndiaye bu Diofior ndeysaan ñu gën ko xam ci Obali Serigne Ndiaye numéro 2 ngeen di gis noonu ndeysaan muy dugg si ak i bagaasam gis nga kenn ku ne mu ngi ñaan di def ay xar ga fuufaam ndeysaan ko noonu lamba ak ciosan ño and ndaysan xolal ma xolal ma xolal ma ñaari champion yi xolal ma ñaari champion yi ndaysan oh ñaari champion ya ngok Serigne Ndiaye numéro 2 mo nek nonu ndaysan lamba ngok ndaysan degal ma lolu ibu Ndiaye bu yor mo nek ni ndaysan mom ngeen di gis nonu borom jof yooro ngoog nee na moo ko moom borom jof yooro ngoog ndeysaan amateur yi ñoo nekk nii dañuy bàyyi seen yitte yëpp jël seen xaalis ñëw dagg bee pour seetaan lamb jëwriñ ziar nañ la bu baax. waaw sëñ bi maa ngi lay ziar bu baax a Sitor Sène Sitor Sène mooy. la ma doon sa teewaay ci làmb ji. waaw gis bëgg la làmb rek moo ma indi si làmb may doon amateur bokk aussi tamit si fan su bu Bukar du ma ko mën a ñàkk wax ndax dañoo bëgg làmb ñun looloo tax moom moo ma indi si làmb bi tey fii nii si terrain Gaal gi. loo gisee làmb ji. làmb ji moom li ma fi doon séentu daanaka fekk naa ko fi ndax làmb ji euh, léegi yi neex na mu ngi dox euh, poids lourd bi tamit am na vraiment li ñuy séentu si làmb simple ñëw gis nañ ko fi tey. jaajëf kontaan nañ ci yow. ok jërëjëf maa ngi kontaan. waa lees bi dafa bëri mbër yoo xam ne xamuñu leen mais abu sa moo ñu woon ginnaaw drapeau chef de moom moo demoon Thiès kon ndeysaan mais Abou moytul moytul booy bi li muy li moom dara leeru ci jàpp na ba Abou jël na tànk bi Abou jël na tànk bi tëj na ko Abou Assef daan na ko Abou Assef daan na ko ko mbaana kon awi daan awi daan ndobo ndeysaan awi daan ndobo ndeysaan awi daan bakk na a a woykat la woy rek lay def moom ndeysaan moom xale bi na ko daan na ko beneen combat bi surprise am na ndeysaan dégg gégógóol gógógóol ñu nga noonu ndeysaan wër na ko ndombo tey daal làmb ji bëri na wër ndombo bu ale say neex na bu laamee lam le jir ndeloola ko ko ba léegi ñu nga ca ñu nga ca ñu nga ca seen bërëb bee metti parce que dañoo tolloo doole lam le jir boy loola ata booyagul laame jir ne loola nana naam kene ndeysaan la fogolo séeréer faatu ba nga ne aata booyagul laame parce que Falayo ndeysaan daan na ko kon daan na ko waa nay leer nay leer daa war a leer waaw daan na ko nga ando fogole sereer amateur ke ndefu nene ka ngara calel den ndeysaan a ngara ɗeg biye den a ngara mbudin jom ne i simnango yo waaw maxey simna nuun a paax xelana nuun man Ablaye Diouf Ablaye Diouf inoor mame Grand Yoff fenum Grand Yoff Refo waaw Grand Yoff Refum waaw waaw gen mam waaw Kaolack moom genum waaw waaw xa refa jafa gen jom ne a ah, moom ka ka andoona yee ka bug no askan ne fop ka mbug anday rek mooy loolu gaay xani in xaƴa calolof xani gar fuuɗiin loolu gaay rek in moom ka i jom ok mais mis ke mis ke waago lay teen a ah, kontaan rek kontaan no ten rek waaw ten sagara jom rek quoi ke fi'a moom ten tongo fi'an me waaw ok mais sim naa bopp. jërëjëf na baax. ok merci. ndeysaan moom moom xale boobu ñu ci combat yi ndeysaan TV Lutte TV ndeysaan war na ko ndombo buddi bi ah ndeysaan daan na ko quel jël quel jël ndeysaan quel jël quel jël ñu ko ca boot kan oh! moo daanu kan moo daanu kan moo daanu daan na ko déggal ma loolu ndeysaan teewaay ci lamb waaw euh, Cheikh maa lay nuyu bu baax euh, lamb ji moom vraiment doon na suñu passion Lo xamanteni chaque dimanche amuñ dara ñu def lu sétan lamb rek loolu moo ñu tax ñu teew tey seetaan si lamb bon mu doon suñu culture doon culture séeréer doon lo xamanteni bon mo ñu gëna lepp ñun lamb rek la dund. à part lamb du dara lamb rek mo xew. ok mais manam mise yu mag jax si tek lo ci mëna wax. waaw bon mise yu mag bon baxna parce que aduna day dox Té peut-être bon. auparavant boo seetloo gars yi ay nag lañ doon teg tey évolution am na ba léegi yi def mise yu mag baax na mais beneen part bi aussi day xaw a créer handicap parce que woo leen tàmbalee mise yu mag tëba tëb wàccaat aussi bon loolu day day day day xaw a doy waar daal waaw benn côté baax na benn côté aussi day xaw a compliqué waaw waaw waaw. waaw yow de daanaka nga nga loo ci wax rek am na. waaw mais mooy loolu noonu mais aussi mbari aussi bon il faut ñu seen bopp ñoo ngi parce que làmb mooy seen métier. ndeysaan yaram daw na ca combat jël na bitar ñi oh, daan na jël waneer daan na jël na ba combat bi du yomb parce que nañu am nga combat noonu ndeysaan moom champion Caaroy bi buñ fa duggee dañ ziar ku mel ni Tafal ndeysaan sunu doom baay boobu le ñu nga noona ndeysaan sama moom moomu Géejawaay Fatou Bangelé yaa ngi woy làmb ji ndeysaan toj ñu nga ca ñaar Baaluuri dugaguñu go jëlati na tànk ba Ngor jëlati na tànk ba tegati na ko eh, daan na ko ca ñu nga ca jël kel jël kel jël Ngor ñaax daan na ko kon Njaay sa mi daan na ko Ngor ñaax daan na ko ku daan Ngor ñaax moo daan sa mi ah waay c'est normal kooku c'est un grand lutteur mademoiselle monsieur et madame soyez les bienvenus ici au terrain Galgui comme nous vous le disons on utilise trois langues différentes Reug Reug est en train de faire son entrée ici dans le terrain Galgui ñëw na ci làmb ji Reug Reug ñëw na ci làmb ji waaw champion Thiaroye bi ndeysaan dugg na ci làmb ji Njaay waaw Reug Reug a ngi noonu ci kaw tribune ndeysaan la ilaha illallah ay waay aujourd'hui adresse Senghor aujourd'hui terrain Galgui do Adrien Senghor te terrain Gaal Gui la c'est Jax production qui a mis 2 millions dans la table le meilleur lutteur qui le prend ah ma maase un seul soir tu gagnes 2 ay waay quel travail quel travail pour les lutteurs Cheikh Asset moo ñu won ginnaaw noonu ndeysaan ñoom ñooñu Abdou Azzaf moo ñu woon ginnaaw mais ñaari daataangoo lañ desaan jël na ko jël na ko Abdou boobu na ci kaw daan na ko daan na ko ndeysaan moom Boucar wéral a jàmm ndeysaan làmb namm na la nga ca ndeysaan poids lourd yi ngeen gis noonu ñi xam naa dañoo daanu ci poids léger bi ndeysaan jëm ci poids lourd bi wala ñu ñëw fekk ñu arrêté mbindu poids léger bi ndeysaan ñu jëm ci poids lourd bi rek nga ca jël na ko jël na ko daan na ko waaw waaw vite fait bien fait vite fait biram boobu na ci kawam ndeysaan biram daan na ko biram daan na ko ndeysaan waaw ñëw ci beneen combat poids léger ba léegi rek Bougane ziar naa la nuyu la ndeysaan ñu nga ca ndeysaan war na ko rëcc na ko Serigne am nga problème tey Serigne Ndiaye am nga problème tey booy dañoo mën a bëre noonu ndeysaan ñoom ñaar waa Cheikh lan moo waral booy bii di bëre waaw parce que poids léger bi booy dañoo jóge ci poids bi ñëw ñëw ci poids lourd bi ndeysaan ah waaye nga ne lii ah waar de waaw doy waar moom doy waar mais bëre la ñu wax bëre waa bëre la ñu wax gis naa gis naa punkon mi tante ñaari tante booy ba génn ca gis nga ko noonu ndeysaan xale yi dañoo mën a bëre combat bi ndeysaan an nasaraan euh, mademoiselle monsieur et madame comme nous vous le disons on utilise wolof la séeréer et la langue française nga la xaan ay Cheikh Cheikh daan ko Serigne Ndiaye daan na ko na jël ba rëy doole moo doxul jàmm ñu ñëw ci poids léger sa ko jël ba rëy na nen ñu nga ca ndeysaan Pakala moo nekk noonu Ibou Ndiaye mooy waaj a sëkk ndeysaan mais xale yi dañoo mën a ñu nga ca ñu nga ca may ñu ñaax ndeysaan diggante ndeysaan Pakala mooy bëre noonu premier combat am Pakala daan na ko ndeysaan xale yi dañoo mën a bëre na ko daan na ko ngal daan na ko jël na ko jël na ko daan na ko jël bi rëy na ndeysaan mu na booy bi ci ngemb booy lay bëreel nag parce que booy seet bëreeg ñoom dafa xaw a metti ndeysaan poids lourd bi bëreeg ñoom day sonn bàyyante nañu Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye ndeysaan Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye mboot na ko ndeysaan jël ba rëy na Serigne Ndiaye na ko ñu ko ca ci combat yi sat Pakala Pakala sop nako nax euh comme jël quel jël quel jël la ilaha illallah quel jël de Pakala Pakala il a fait tomber le boy. la ilaha illallah aujourd'hui terrain gaal gi terrain gaal gi en train de suppaliku. la ilaha illallah. nga ca Birame mooy bëre deuxième combat noonu moom Birame Koungkoung te poids lourd bi bëre poids la sa ndeysaan neexul parce que day mel ci poids lourd bi ndeysaan poids lourd yi dañoo diis Ndiaye loo ma mën a wax ci poids lourd bi bëre poids léger en français. waa c'est le poids lourd entre le poids léger ça c'est extraordinaire. Regardez ce que le poids lourd est en train de faire. Mais le poids laissé, il est en train de le faire bouger. On remercie la diaspora. Italie, Allemagne, France, Angleterre, Belgique, Brésil, partout. Il y a les internautes de la grosse TV. Il y a des gens qui aiment la grosse TV, qui sont de l'extérieur. On les remercie. a travers ce micro de Lac Rose TV ay waay aujourd'hui terrain gaal gi est en train de suppaliku suppaliku nag laa xamul nuñ koy waxee ci français waaye tey sama reporter day dóor marto sama reporter day dóor marto tey ñaari micro la yor xaw ma ñetti micro Cheikh bàyyil dóor marto bi wóoruma marto ndeysaan dóoruma marto yaakaar naa ne TV ji ñoo ko bokk kon dañoo war di parce que ndeysaan euh, adduna amul solo ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay amul benn problème on est que si biir ñun mën nañoo dal ndeysaan ñu ñoo jox leen suñu micro ñu reporter ñu kon ñoo bokk TV biram biram baar na ko ndeysaan biram baar na ko mu bitar ñu biram daan na ko kon. Waalo ndeysaan jawra jagin ja ja kun kurgun kun kun, Ndambe daan na ndeysaan daan na burang Burok burang Burok Ndambe ndeysaan ay Cheikh Burok Ndambe il est en train de faire affaire la ilaha illallah ñaari combat ñaari victoire extraordinaire ay waay Ndambe ngoog waay mbokk yi tax na ni c'est le Burok Ndambe qui est en train de faire affaire mais mburong ndambe en français nan lañ koy waxee mburong ndambe. mburong ndambe. le pee ndambe. ndambe see see ay waay ndambe nu koy waxee ci français waay. le pee la ñebbe. ñebbe bu ñu ko toggee def ko soos mooy ndambe. see mburu ee ndambe. déggal ma loolu ndeysaan déggal ma sama jàngat soom. sama caméraman bi mom moom tos mom momu dan na ko ndeysaan loolu lerna na lerna dan na daan basiru galma Basirou Basiru ndeysaan Basirou Faye ndeysaan moo juddoo Patar mom momu ndeysaan di doomu Dudu beri. ak Sall ci Ñaaxar ndeysaan ñoo bokk ndey ak baye da koy waaja mbabas déggal ma nokkos déggal ma bas lim koy nokkos kel na ndey ma yóbbu dina ko laa ilaaha illallaa kel yanu kol dóor ci waaye ma ne Cheikh Boy bi mu bàkku daa bari énergie mbëpp ci bàkku la ko def waaye il a waay il a trop bàkku doy na waar waaye il a trop waay ah lu doy na waar ndes il est fatigué il a lamb ah waaye il doit tomber kañ ndeysaan déggal ma sama français bi ko waxee quel bàkku il a bàkku trop il loolu ci Lac Rose TV la xew ndeysaan ñu ñaam na daan na ko li ngay dara leeru ci ñu nga ca quel combat dapit waaye quel albati wa yaay booy ka illa albati la ilaha illallah quel grand combat quel grand site quel albati waay man say loxo waay waay yaaya say loxo Abou Assef moo nekk noonu moom góoru aada ak awa ndeysaan moom mi yaram daw na ndeysaan wàcce ko wàcce ko ndeysaan Abu Asef Abu Asef daan na ko ñu nga ca ba léegi arbitre kan moo daan arbitre kan moo daan arbitre kan moo daan Mburok Ndambe nee nañ daan na Mburok Ndambe daan Cheikh Tidiane Niang moo nekk noonu daan na ko quel jël quel jël ndeysaan quel jël daan bi rëy na ndeysaan waaye Tidiane Niang moo nekk noonu ndeysaan moom mi génnee ci lamb académique ndeysaan lamb académique champion bi moo génne ci laka lamb académique ndeysaan Diagne Diagne naar siyaar nañ la ndeysaan yow moomu le sunu baay boobu ndeysaan jaar ci RFM ñi ñi lancé booy bi ci la bokk moom sunu boobu le ñi ko lancé ndeysaan moom ci lañ bokk kon jaajëfal nañ ko Lamine Samba jaajëfal nañ la déggal ma loolu ndeysaan Biranti Lamb Ngor Ñaax Ngor Niang Abou Assef Ngor Niang eh, Abou Assef daan na Ngor Niang ak Ibou Ndiaye ñaari njaayeen lañ ndeysaan ñaari njaayeen lañ ñoom ñooñu ñu nga ca ndeysaan lamba leen boole jàpp na ca tànk ba file file na ko daana tina ko ndeysaan Gora Sock jël na pakala pakala rasuna ee eh, pakala pakala Gora doole doole Gora rasuna ba génn ja ndeysaan mburoog ndambe la ndeysaan jolol jol o jol o jol o jol ndeysaan o jol lin o jol lin mburoog ndambe eh, na ko mburoog ndambe na ko daan na ko jaay. laa ilaaha illallah. ay waa Cheikh ñebe. nañ la. Abou Assef takk nañ la. daan nañ Abou Assef kon. Reug Reug moo nekk noonu ndeysaan. doomu caare bi mooy wàcc noonu. doomu caare bi mooy wàcc noonu ndeysaan. doomu caaroy be nekk noonu Reug Reug moo nekk noonu ndeysaan moom bi déggal ma li rek déggal ma loolu ndeysaan moom moomu dekan ma loolu ndeysaan moom champion Caaroy bi lamb na kala anda li bu ko jot ndeysaan déggal rek mbokk internet yi ah ça c'est Reug Reug ça c'est Reug Reug le grand champion le grand champion de Thiaroye il est revenu des États-Unis ah regardez il est revenu avec forme. déggal ma loolu ndeysaan Serigne Ndiaye jëlati ko. mu ngi koy jéem xar mu ngi koy jéem xar daan na ko Serigne Ndiaye daan na daan na ko Serigne Ndiaye daan na ko Serigne dafa am dafa am doole daan na ko daan na ko gan dem na final ndeysaan ñu ñëw ci combat ba léegi ndeysaan arbitre bi kenn xamul lan la wax parce que da nga yaakaaroon moo daan mais gis nga ko waat na leen parce que Gora Sock dem na ba mel ni ku toog ndeysaan Modou Faye moo nekk noonu ndeysaan ordinateur fois. Le premier tombé, l'arbitre n'était pas d'accord. Il a fait tomber le deuxième. Mais Mani, là, il a la lambo qui est interdite. C'est ordinateur qui est en train de faire de le spectacle. La il a la Khaled Makbouk Bangok. Mani makbuk Bangok. Ordinateur Bangok. ay way way way way Mani yengatu way La ilaha illallah ay waay waay mbokk yi ndax di fi ngi yëngatu mbokk diaspora bi dara du leen fi ump lépp lu fay ambiance dinañ leen ko won lépp lu fay combat leen ko won Reug Reug il est venu il est rentré mais ordinateur aussi il est ay waay waay waay waay tey jii c'est un jour où on va pas l'oublier ñoo nañ final bi ndaysan poids bi oh Mamou Zidane ak mourong Dambe Mamou Zidane mo ñu woon ginnaaw combat bi du yom parce que ñaari lañ ñaari Mamou Zidane ak Mburok Ndambe ndeysaan final poids léger bi Mamou jël na ko Mamou jël na ko Mamou Ndambe tëgg na ko mboot tëgg na ko mboot war na la ndoo ba Ndambe oh Mamou Zidane daan na ko Babou Zidane jël na poids léger bi kon on est ici à terrain gaal gi Cheikh final bi c'est qui et qui waa ndeysaan dégg ngeen ko ni ko Ndiaye waxee final bi ndeysaan Ibou Senghor numéro 2 la ak Serigne Ndiaye numéro 2 mu ñaari numéro 2 ndeysaan ak kan waaw ndeysaan ñoom ñaar demee rete wuñu kenn ku ci nekk war nga rawatina suñu mbokk diaspora bi il faut rien rater on va tout les donner Cheikh on va tout les donner. ndeysaan ni ko Ndiaye waxee o fogole séeréer nu nantaan kon final fee reta final bi dem na ndeysaan diggante Serigne Ndiaye numéro 2 ndeysaan ndeysaan ak gaan ndeysaan bu Senghor numéro 2 laa ilaaha illallah jàppante nañu ñoom ñaar man kay dawale ay waay kii va tomber kii va amener le 2 millions dans cette journée la famille de 2 lutteurs vous tous attendez l'un des familles aura 2 millions ce La ilaha illallah, ça c'est seulement la lutte traditionnelle qui passe ça. C'est notre culture traditionnelle. Une soirée, tu gagnes 2 millions. Ay waay la ilaha illallah, waay Cheikh teel sa micro waay. Ndeysaan dégg ngeen ko mbokki Lac Rose TV ni ko Njaay waxa sama caméraman boobu. Kon du ma sa daan na ko ñoo ngi ak euh, Doudou Niane Djilass production ndeysaan comme gisuñu Jax moom la ñu gis waa ñu organiser bës bu mel ni organiser waat ko loo ñu mën a wax ci organisation bi. Eh, alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant ñëpp ñu ngi sant ñëpp rawatina amateur yi fi tase ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen sant yéen aussi ndax euh, wax dëgg yàlla bi ngeen ñëwee ba léegi. dafa tax euh, ñi nekk ci diaspora bi sonnatuñu ci làmb ndax même bu ñu seytaanul làmb sax bu ñu euh, seytaanul làmb en direct ñu ngi chaque jour ci réseaux sociaux bi ci réseaux sociaux yi rawatina yéen waa Lac Rose TV li ngeen di liggéey ñun gis nañ ko bu baax a baax vraiment a ɓeera at a ɓeera at a paax ngidma amateur ke fop e ngidma we andoona ande euh, staff Jaks Production den na ndamta in depuis nqesna bo ndig a we fa in meen ñaame yere keke ga'ona ke fop den ngid ngidma fop ngidma nun walak cross tv i njege ndabid nuun roog fe jegna ndabid yasam rabda nuun yasam menu mbugna mbad o yaaloxe ɓisa nuun maaga ngidma we mbak na njomne ngidma we ngim we ngim na njom aussi parce que akim belé mbak fe fele mhm. o ngan depuis 4 euh, h bo xay awe mbaka ngima in way ñanana den wena ngima yasam roga wodan xa ñuxraxe deno tout oxu refna o kiigim Sénégal rek in way ñananam yasam roga wodan o ñoxrof a wena mbaka aussi a wena mbaka tout oxu refna o pafak Sénégal in way ñananam rek yasam roga ciyam o fo ɓaal bo o waag ke waagona vraiment i content trop organisation fe a a paax ngidma staff fe fop i waaw ndiki um, uh, um nane kan mbakna 10 millions arène national xa production ka faka le décembre 10 eh, millions arène national vraiment euh, a ref ka andoona ande aussi piir ga fada ngorgorloox ndax njom a avancer a njom meta a jega wiin we andna ande xaye o yoqangaan ma da ndefna dene njom a donner euh, un million xaye da lome jege yaag koy comme doole geneen o kiin ndax euh, ka genariido ka o kiin rek a nanga toxooxa ke i den we andna ande den na mbiyan a ndef piir fada ngorgorloox a paax to ande tango rek ka waana mi fa nek ma frem bo xaj ñom ito vraiment nga mis ke ndonel xay a jega carte fi mi ito ñana na den sam roga ci edno wut football sam roga ci edno wut football aha falay na massa kon nga ano euh, no staff jax jax president fodu euh falay na talaytu na ak ma fop xedan fopit comme ngar ina men a joka dina njal euh kon niñ koy waxe rek comme buñ waxe sereur dañu wax olof gis ngeen ko moom ci organisation bi la bokk daanaka mën nañu wax ne moom mooy Jax parce que lu ci ëpp ci organisation Jax moom la ñuy gis kon moom mooy Jax rek jaajëfal na ñëpp ñaanal ñëpp ñi fi ñëwoon di leen jox rendez-vous vingt 29 arène nationale ci 10 millions yi waaw kon avec Lac Rose TV Lac TV moom dara du leen rëcc ci kàttanu yàlla.